jàngoroy coronavirus bi am na njeexantal ci dem dikk bi fii ci Touba quartier Ndamaatu ci corniche kër Serigne Modou chauffeur taxi yi nga xam ne ñoo fa nekk nee ñu dem beeg dikk bi gàllankoor la am ndax mënatuñoo gis client lañ daan am bés bu yàlla sàkk wàññeeku bu baax a baax. comme feebar bi ni mu amee wax dëgg yàlla liggéey bi laal na ko liggéeyatuñ suñu oto dañ ko gaar moom sama oto ma nga kër ga ma gaare keneen noonu keneen noonu ngir lan ñàkk am lu ma yeb li may lakk gaas dem a ñëw mëntu ma ko cee am. ma ngi ci kër ga ma bàyyi su ma xëyee sama tànk la doxa ñëw fii lu ma for dépassé ko moom ma gën a yombal ma koy dawal man mii de wax a yow démb xëy naa ba ngoon jot wenn 400 francs laa am téeméer laa am naan kaasu café ak ndox mu des 400 sama oto ma gaare ca kër ga waaw fi ni nii sa njaboot laa yor li may tuuti tuuti nii njaboot laa yor damay joxe dépasse li tax parking bi amul oto ñëpp gaar nañ seen ñi nga xam ne nii dañ leen a jox oto embauché leen mënutu ci am dara dellu nañ seen oto toog nañ loola boo doon ne borom kër war-war wi tege sa kaw ba noppi nga gaari sa oto yaakaar naa ne da ngay soxla ndimbal lool lool lool lool. oto yi fi mu toll nii oto bi xëy na yem ñeenti nit dem ba yem ñaari nit mënatoo am koo am moom ne yàlla dogal ñoom moom seen i oto ba tey it mu dinañ dépasse képp danañ nit mënuñu koo am. ñun nag feebar bi wax dëgg yàlla dégg nañ ko ni ko ñëpp di déggee te tamit charte yu gouvernement bi joxe bi yëpp ñu ngi ci raxasu bi ñu wax nii ku ci yab client boo ñëwee bala ngay wax kenn danga nga raxasu eh, ma nga nelee suñ kii war a xasukaay ma ñoom chauffeur yi nee ñu mënatuñoo am dépense bu mat droit de stationnement yi nga xam ne sax moom lañ war a fay mënatuñ koo am dafa am bànqaas boo xam ne moom dafa bokk ci ñun sax ci ñun loolu nag ci mënuñ koo ñàkk a tudd muy la mel droit yi ndax droit yi wax dëgg yàlla man de du ma la nëbb dëgg wax dëgg yàlla dëggaguma ko bari naa ñu ko dëggulit nag ni samay morom ndax la tax mënuñ koo dagg mooy lañ koy daggee day naa ne dañ koy war a mën a xoromoo droit 3000 francs yi da nga xëy 3 jours ba 4 jours doo ko mën a dajale. ca 3000 francs yooyu wax dëgg yàlla bu fekkoon ne dagg bi da nga gis sa bopp nga mën cee gën a sawar waaye wax dëgg yàlla day defoon ko Touba ca kanam day mu doon sart yoo xam ne moom la kanam teg ñu koy tegoo moo ñu gënal lool ndax nit ku nekk la ngay def nag boo sañoon na ca gis sa bopp ñoom chauffeur yi nekkee ci Touba Ndamaatu corniche kër Serigne Modou nee ñu mboolem recommandation yi nga xam ne état bu Sénégal joxe na ko respecté nañ ko waaye ñuy xaar ndimbal li nga xam ne moom la président de la république wara séddale te ñoom dégguñ ci benn yoon ñu limaale leen ci ñu ci xaar seen wàll. Olof Njaay ne mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk ndax bi ñu xoolee banqaas yi bari na ci banqaas yoo xam ne dégg nañ ñu tudd leen ci ndimbal mi waaye yi dafa bari dafa dafa mel dañ leen a ci tudd mu demee ni commission taxi wala urbain ak camion gros yii amuñ amu bokkuñ ci tur yi. ndimbal yi nga xam ne ñi ngi ñi ngi dégg président mi ngi koy séddale xam ne lii ndogal loo xam ne suñu borom la jógee jógewut ci moom mais mi ngi jàppale doomu aadama yi ñu ngi koy ñaan suñu loxo jotut ginnaaw suñu ginnaaw ñu ngi ñaan lu ñu mën a jàppale ci ndimbali mu jàppale ñu ko bu fekkee dañuy dimbali safoor bi amul bulletin d'embauchement ñi ci ëpp journalier lañu. maanaam fay la vingt mille francs par mois vingt mille francs boo calculé mënu la mënu la satisfaire ci xale bu ndaw laa la wax de boo xam ne day jàngi école mënu ko satisfaire nga jox ko magum jëm mu doon borom kër lii wëlbati ko daal suñ kaw kon day métti lool. daal dañuy ñaan ndimbal dañuy ñaan lépp loo xam ne bii daal jóg na dugg ci réew mi ñu boole ñu ci ñun taximaan yi ñi ngi doog boo nekk Touba buntu kër sëñ Mour bi sa jëng gaaras bi ñu tudd xaar yàlla ak gaaras bii nii mais ñaari gaaras yi benn lañ bii def devant moo ñu xaajale ñu def ñaari gaaras waaye gaaras bi benn la woon kon ñun ñii ñun ñëpp ñoo bokk ndey baay ñoo bokk luñ bëgg ñu bokk lu ñu wut